aywa euh, Marcel euh, Maroon ci un jour une actu nga ñëw itam ci mbiram Gemalto démb Cheikh Tidiane mu ngi koy tudd ci xibaar yi tout le monde s'est posé la question c'est quoi tey yaa ñuy gën a xamale ak moom di fàttali ne euh, tudd nañ leen daal euh, ci mbiram scandale euh, lu jëm ci wàllu guerre. Ah, c'est cela soxna Fati scandale bu jëm ci wàllu guerre loolu waral sax ñu daal di tànn chiffre bi di juróom-ñeent ndaxte mm. ci lu ëpp juróom-ñeent ci ay milliards ci suñuy koppar la ñu daal di jàpp ne mooy montant marché bi nga xamante ne dañ ko attribué boobu les sociétés françaises kon di Gemalto atum 2019 la woon te ministère bi di ministère des infrastructures transport ak désenclavement daal di ko koy attribué ngir rek. fexe ba renouveler li nga xamante ne moom mooy permis de conduire yi carte grise numérisée euh, wala sax plaque d'immatriculation euh, ci wàllu projet euh, bi ñu gën a xamee ci turu Cap Karange waaye ñu jàpp ne mardi bi passé entreprise boobule di Gemalto dañ ko daal di rek tijjil lu ñuy tuddee information judiciaire te mu jógee ca parquet national financier bu Paris yooyu les boobule information judiciaire di viser ay marché yi nga xamante ne ay marché gouvernementaux ñu daal koy conclure diggante société boobulee ak ay euh, réewu Afrique yu bëri yu mel ni kon Sénégal ak République démocratique du Congo euh, ñu jàpp ne que enquête boobu noonu mu ngi daal di rek porter sur lu ëpp ay fukki ci ay euh, ci ay marché gannaaw kon li nga xamante ne moom mooy projet Cap Karange bi ñu bi ñu nemmeeku mu am tamit marché yu jëm ci wàllu carte d'identité yi ak yu carte électorale te nga xamante ne Gemalto daf ko remporté diggante atum 2015 ak 2019 ci ay commission yi nga xamante ne dañ jàpp ne daf ko laal ngir remporter ay contrat ak ay Euh, bokkoon ci euh, boobule deal noonu la ñu ko mën a tuddee information judiciaire bi moom plus amplement plus exactement ñu ngi ko daal di tijji euh, fukki fan ak juin atum 2022 kon bi corruption d'agents publics étrangers en bande organisée blanchiment aggravé corruption d'agents publics étrangers ak tamit association de malfaiteurs ñuy fàttali que média bi di Mediapart moom moo rek daal di découvrir lu ñuy woowe le pot aux roses et le parquet national financier de Paris donc l'a confirmé Soxna Fatick. Ah origines de l'affaire les origines de euh, de l'affaire ñu jàpp que kon euh, jeudi euh, ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars atum 2019 ministère des infrastructures transport terrestre ak désenclavement ci baatu directeur des transports routiers di Cheikh Oumar gay ñoom ñoo daal di rek accompagné kon du partenaire privé Michel Thomas nga xamante ne moom moo nekk directeur général bu Gemalto Sénégal SA ñoom rek ñoo procédé woon li nga xamante ne moom mooy remise carte grise yu njëkk ñu numériser kon ci Sénégal ak tamit pose des premières plaques d'immatriculation Euh, sécurisé ca CICES la woon pavillon euh, spécial euh, pavillon esplanade des des régions au niveau de Thales moom nga xamante ni lañ jàpp ne moom mooy en tout cas groupe bi muur bu boobulee groupe di Gemalto la presse française daal di koy contacter mu confirmer que filiale am boobu kon di di Gemalto moom dañ ko daal di rek jox octobre 2022 la woon benn réquisition judiciaire ngir fexe ba communiquer ay documents ak information yu lëkkaloo ak ay contrats yoo xamante ne dañ jàpp ne Gemalto moom moo ko remporté balaa kon Thales di ko acquérir en 2019 Thales moom nee na euh, conformé wu na euh, bu baax a baax lu jëm ci wàllu réglementation nationale et internationale euh, di pratiquer waale benn politique boo xamante ne ñoom tolérance zéro lañ ko jàppee lu jëm ci wàllu guerre ak tamit trafic d'influence Tracfin kon moom mooy benn cellule de renseignement financier bu nekk ca Paris Bercy moom moo daal di kon yee li nga xamante ne moom mooy justice française ci boobule affaire loolu waral mu daal di joxe lieu à une ouverture bu ñu jot dox doxal portant sur des marchés gouvernementaux te nga xamante ne Gemalto te mu doon après Thales DIS daf ko daal di conclure ak ay réew Afrique yu bëri bu ñu sukkandikoo ci parquet national financier euh, français bi ñuy fàttali ko ñuy fàttali nekk plusieurs perquisitions euh, dañ ko daal di mené kon en octobre dernier soxna Fatick. mu mel ne am na yeneen réew yu nekk fii ci Afrique yu mbir mi laal. Mhm. Euh, juñu naa ko sànq wax naa ci République démocratique du Congo kon mi nga xamante ne gannaaw Sénégal dañ jàpp ñoom seen investigation mu ngi toll ci benn contrat bu toll ci. ñeent fukk ak juróom benn ci ay millions euh, ci euh, dollars la daal di remporté atum 2016 la woon euh, ca wetu commission électorale national indépendante kon ñu gën leen xamee ca CENI ci république démocratique du Congo waaye gannaaw loolu tamit muy intéressé wu li nga xamante ne moom mooy beneen contrat bu ñu daal di remporté en 2017 par le biais d'un intermédiaire israélien bu Gemalto te mu négocié ñu jàpp ne dafa négocié ñaari contrat ca réewu Cameroun ci lu jëm ci wàllu carte biométrique contacté kon par l'AFP Thales di ne moom ba léegi day coopérer pleinement ak autorité judiciaire euh, ci wàllu ci wàllu boobule euh, procès kon mu fàttali euh, wu strictement aux règles nationales et internationales di pratiquer waale kon benn tolérance une politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption et du trafic d'influence soxna Fatick. aywa on aimerait bien en savoir plus sur Jamal Togo. Jamal Togo moom maa ngi koy wax sànq dafa mujj daal di tudd rek Thales Digital Identity and Security nekk benn filiale du groupe d'électronique CNRS spécialis spécialisé kon ci secteur euh, bi nga xamante ne moom mooy secteur sécurité euh, numérique euh, ñu daal di jàpp ne moom mooy le premier fabricant mondial ci lu jëm ci wàllu carte SIM di fournir lu toll ci 450 opérateurs téléphonie mobile rek dam jamono 2014 rek lañ ko xayma woon kon ñu jàpp ne xëy na mën na yokk ci diggante bi waaye balaa moo rek jënd bi Gemalto 2019 moom tale Gemalto dafa nekkoon benn entreprise multinationale hmm. boo xamante ne de droit néerlandais la woon mooy secteur de la sécurité numérique mu établi wu ca Pays-Bas am ba di disposer ay filiales lu toll ci ñeent fukk ak ñett ci euh, ay réew ci àdduna di employé lu toll ci 14 000 salariés euh, yuy liggéey ci benn total de 146 sites comprenant 74 euh, bureaux 15 sites de production et 14 centres de recherche et développement ñu jàpp ne kon Gemalto moom dafay développer ay logiciels ak ay produits et services sécurisés yoo xamante ne dañ koy utiliser ci wàllu télécommunication ay identification euh, sécurité euh, des lieux ak euh, individus yi waaye tamit lu jëm ci wàllu wergu yaram transport ak communication mhm. machine to machine donc mu compter également lu toll ci ñetti junni ci ay banques yoo xamante ne ak société financière ak lu toll ci fanweer ci ay gouvernement yoo xamante ne dañ jàpp ne ci ay clientam lañu bokk soxna Fati aywa merci beaucoup Marcel Farba Maroun Chérif mu mel ni Gemalto fi mu ne nii coow topp na ko muy mbiram lu jëm ci wàllu ger démb ba léegi ñu ngi koy waxtaanee waaw moo tax euh, fii Sénégal on verra parce qu'on parle d'intermédiaire ak loolu mais li li ci doy waar rek mooy en tout cas Sénégal kilifa yi war nañoo gën a lu ci lu ni mel lépp lu jëm ci mbirum ay données personnelles nan bàyyi di ko jox waa mm-hmm. bitim réew boo xoolee carte d'identité yi ñu ngi ci tudd ay Malaisie wala nga tudd des fois Israël lii aussi nga jël waa bitim réew lu tan ay carte grise ak ay permis nga xamante ne quand même dañuy xam mm-hmm. sa secret mu dëkk te lii dafay yoo xamante ni dafa sensible sensible goo xamante ni mm-hmm. wala ñu cee gën a góorgóorlu ba Sénégal di ko gérer boppam beneen bi tamit mooy koppar yi bëri na yi nga xam ne defoon nañ ko ci ci en tout cas ci modernisation transport bi oui il fallait numériser muy permis yi muy carte grise yi mais boo xoolee ci plaque yi ba léegi en tout cas maa nga doon wax sax démb ak benn kilifa quand même ci ministère des transports constaté nañ yéexaay ci fan a jëm parce boo xoolee déjà nurootul ñi nekk ndakaaru deekaa yi oto yaa ngi circulé ba léegi am à ñi nga xamante ne am nañ ay oto yu bees yoo xamante mhm. suñ demee di def li nga xamante mooy mutation ñu leen carte grise changé mhm. lii di plaque d'immatriculation bi mhm. te loolu quand ci wàllu harmonie ak ci wàllu quand même ci gis-gis du rafet alors boo xoolee dëkk yu bëri gis na ñoom dañuy gaaw di def seen transition day gaaw mais fii depuis ba léegi ñi ngi ci phase transitoire bi quand yéex na jëm ci wàllu moom mooy ces nouvelles plaques d'immatriculation mhm. te loolu bokk ci li nga xamante ni quand même day rafetal xarxanam xarxanam dëkk parce que liñ ci jublu woon mooy xeex li nga xamante ni mooy waa wàllu corruption euh, euh, numériser lépp mais buñ déggee ñu ne société bën ko nekk ñu ngi koy tudd wàllu corruption ci bitim réew loolu aussi dina leen demal xel très bien aywa ñu euh, wax ci leneen muy un jour un jour un jour au Sénégal un jour dans le monde la ñu waxoon léegi ñu wax ci de quoi est-il le njuumte gi de quoi est